mbokki département Mbacké mbokki Touba asalaamaaleykum man la Mafari Ndiaye nekk tête de liste proportionnelle benn Benno Bokk Yaakaar ñu jëm ci ay élection muy élection départementale di élection gox-goxaan suñu candidat nekk Matar Diop nekk tête de liste majoritaire bi ñuy tàllal loxo mbokk département bi yëpp ngir ñu voté pour coalition Benno Bokk Yaakaar ci biir liste bi ay ndaw yu sawar ñi ngi ci ay kilifa yu am xam-xam ñi ngi ci ay soxna yu bëgg seen dëkk ñi ngi ci ñu bëgg naatal seen dëkk ñi ngi ci ci biir loolu yéen département bi ñu ngi leen di woo ngeen jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar ndax indil nañ leen programme boo xamante nii li ñu bëgg mooy def suñu département mu nekk meilleur département du Sénégal ndax xam nañ dayo bi nga xamante ni dëkk bi am nañ kon nag liñ leen di ñaan mooy yéen ñëpp ngeen jàppale coalition benn Bokk Yaakaar ci élection départementale yi ñu jëm yàlla may ñu ñu àgg ci ak jàmm ñu voté ci jàmm ñu am ndam li liggéeyal gox bi ba li nga xamante ni Serigne Touba loolu la bëgg ci dëkk bi ñu mën ko ko fee defal jër a ngeen jëf.